ak ISEP bi nga xam ni ñu bare ñu ngi doon wax naan ay chantier la ndax ndax chantier la wala déet ndax déggoon nañ sax temps yi nu naan ISEP bi amul courant euh, ISEP bi si boppam amul amul ay fosse septique amul toilette yu mel na ak yooyu yéen gis ngeen ci am nañu yaakaar ni daa ngeen mën a wax population bi lan moo fi nekk ISEP bi waa kore ñoom ñoo ko jagleel Sénégal wareefu COICA muy coopération coréenne moom moo doon mu jël entreprise de construction bi nga xam ne day tabax ba pare mu indi fi équipement yi mooy jumtukaay yi nga xam ni euh, xale yi si ñu war a jàngee. pàccu Sénégal nag gouvernement Sénégal moo doon mu tabax lépp li nga xam ni euh, mbiru décret la. pour mu mën a jëmmal ISEP Diamniadio ba pare jox ISEP Diamniadio lépp li nga xam ni jumtukaay la si mbiru xaalis pour que mu mën a dox ba pare tamit di leen wax nii li ngeen fi fekk ci ngeen gisal ko seen bopp du rekk école comme école école la bi nga xam ci biir école bi ci bopam dañ fi def lepp li nga xam jumtu kay la pour que xalé yi nu mën di jang way nu mën di jéemtu pour liggéey jéemtu bobu moom mooy tax avant même ñuy genn di dem si bërëbu liggéeykaay yi dañuy xam presque liggéey bi ba paré dañu bëgg xalé yi buñ fi joggé wara dem liggéey si liggey kay ke kenn du wax ni ñi xawnu liggey bi legi legi lajon ngeen man ak mbass mi liggey kay yi nga xamni ni seen bop tamet dañuy def ay gestes barrières nan nunu mëna def pour que jang bi nga xamni ni gouvernement ci bopam def ni na nek jang bi nga xamni genn wàll gi si école bi lañ ko defee genn wàll nu def ci liggéey gaay ñun li nga len lan lañu def ñun dañu tëgg isab jam ñaajo si nek bërepp bi nga xamni dang fay jangal dang fay jang waye temet dang fay jëmtu